bari luñu ñu naqari si ndax ak gi gis nañ ne ñun dañuy faral di tek ay mitit ay charge yu bari charge yo xam ne kenn xamul fu muy jógee te charge yooyu bu ñëwee dal suñu kaw day delu wat dal ci pèlerin bi te nit ñi dañuy defee rek ñun la alors que coûts yi augmenté ñokay indi bi ci jitu moy Flynas aviation compagnie aviation bi compagnie aviation bi mi ngi ñu jox prix bo xam 1 un million trois c'est excessif alors que ñun mën nañ ko am ci 900000 francs

dafa le Sénégal parce que loolu la ma sa wone kon tey bu décidé loo xam ne arrangé wul Sénégal ñun dañoo war a jóg sur le plan diplomatique dem wax ak ñoom ne leen lii arrangé wuñu surtout que dañ ne ñu dans un délai de trois mois il faut ngeen indi un agrément IATA qui coûte 100 millions de francs mais c'est pas possible dans la mesure où surtout li gën a am solo sax mooy ñun IATA suñu yoon déchiré newul ndax waa IATA mooy ñan ñiy jaay billet ñun jaay ñu bi pourquoi ñu ñuy laaj agrément boobu kon loolu moo tax ñu ne nañu ko dindi dañ cee dugal lu ci bokk xam nañ ne même bu fekkante ne Arabie Saoudite defoon na note not boobu ku ko xool Arabie Saoudite volonté mooy day dem ba sax aj gi dafay koy yombal ndax ñoom nee nañu bëgg nañu fii ba 2030 ñu am 30 millions de pèlerins ku bëgg loolu nag du ko dangal te lii forme de dangal la ñu ne dañuy jël 20 agences yoo xam ne am nañ IATA ñu jiite aj gi alors que ñi fi nekkoon. tax ba aj ag fi mu aj fi mu toll ñu ne dañ leen di delo ci ginaaw lool nak lañ ne na fi dañ benen bi moy privatisation moy président de la république en 2015 15 dafa dindi tas li ñu tuddee commissariat général au pèlerinage indi la délégation générale au pèlerinage délégation bi nak être président def na won yow da nga fiy nekk fi def fi rôle bu bess moy da ngay réguler contrôler waye duutoo convoyer duutoo yóbbu ujaaj ji lépp dama koy jox ñi nga xamanté ñoy ñooy privé yi président euh, le premier ministre année ca Abdallah euh, le le le délégué général chaque année wàññi 500 ci say 2000 loola kon 2019 bi privatisation intégrale Waron am mais on sentir une volonté pour faire reculer cette échéance là nous ñuy le président de la république Louis jot John. Nous ñun bu 11 11 gérer pèlerins képp ku gérer 000 pèlerins war nga gérer 13 000. dara ci nous kenn ne ñun pas gérer mun nañ ko parce que woné nañ ko aj gi bu ëgsee fii ñun la duñu ñu nangu tamit wala bok dinañ ko yëgal état bi bokk na ci blocage yi ñu bayyi fi ñu am expérience ñu am expertise di jël ñi nga xamante ni dañuy ñëw pour ñu gérer foog ñu jàng aj kon loolu tamit ñun gis nañ ne bokk na ci jafe-jafe yi nga xamante ne nii am nañ ko te bokk na ci li ñuy naqar mais dama ne ñun daal li ñu xam mooy aj gi 2016 ba léegi ay cumul de problème lañ fi gis ñun ay pression yu ñuy teg voyage privé boo fi laaj boo waxee lay yàlla rek wax na la ne xelam du dal wax na la ne na lay dundee wax na la ay perte lay am parce que ren jii perte bi nga xam ne moo ci gën a simple rek mooy nga dem Arabie Saoudite ut sa hôtel fay sa restauration wax ak sa contrat wu billet d'avion ba pare daal ne pèlerin bi 3 millions 500 laay fayee ko wala 3 millions 100 laay fayee ko mu ñëw na la doo fayee ko loolu lii ngay fayee ko koku problème weesu bu ko bok na si li indi suñu mu gis na la erreur corriger mais correction bi mo a parce que def homologation mu ne kon ren ji def fixer ngeen di wax nit ki ngay xel man de len laaj ban université euh, euh, euh, prix de vente ba y a trop de problèmes nañu dindi fi problème yi problème yi citer naa leen ko la privatisation bi fii décision yi suñu kaw le prix cher de l'aviation, ci la bokk le cahier des charges ci la bokk mais il faut que des experts càmbar loolu lépp mais état d'Al, na xam ne ñun pare nañu pour accompagner président de la république ci volontairement am bi mu wax privatiser te ñun xam nañ ne mën nañ ko